Xaarima ñànku léegi danga maa bëgg a rey. déedéet fekkoon sàcc la. loolu laa koy xojee mu ne waaye nekkul yow. lu tax xoj ma kon. yow xanaa xamoo li ma wax. kon lu tax nga xoj ma. bu nekkoon sàcc bi laa xoj. waaw ma ne lu tax xoj ma man. yow yow laa xoj. waaw ndek de man ah maa ko ma bokkuñu waay. loolu laa doon wël. yaa ngi ma numbe bokku leen bàyyi loolu leen bokk lan yéen a bokk ndey. bokkuñu ndey de. bokku leen ndey bokku leen baay. bokk mënu be mënu nekk na xaw ma ko tax. Ah. léegi damaa bëgg. Hmm. nga jóg jekk. Hmm. sa sa daan yee. Hmm. dama laal sa sa yére yi yàgg sama ovaañ. ak mënu be. ngeen génn abal ma ndax. saison bi day waaj a tijji te damaa war a nekk mbël. waaw kër gi laay toj def ko salle fii laay antile ne. waaw yow kër gi boo ko tojee def ko salle bu entraînement après yow fooy dëkk. ci salle de France. waaw. fii laay fanaan fii laay ma xëyee mm. damay entraîné. Mm. ma tey wuti comme ni ko mbël defee. waaw bu ma ko defee fii laay fanaan. waaw fu ma ne bu yow lu tax entraînement di gën a bari. ci salle bi laay fanaan. waaw nga xam ni mbël maa leen dàq maa dóol maa leen gën a soxal. yow daal soxor ak iñaan yow da yaa gën a iñaan mbëri foof man man man moo loofante ak yow saa yi may hmm. yi ni xam nga mbëri dañuy am na ñu dëmu dëmul nga ñu loofante ñu jël def ay changement de genre def ay felice ah man daf lay talan tekk sa ngemu li waaw jar sa alma bi léegi nag kalin mat te ne ko ne mu ngi lekk nga yuux waaw waaw foo yuuxoo balaa àll di ñëw balaa àll di ñëw balaa àll di ñëw mu takkat sa ngeem bu wax la nga daanu nga defe ni yow li nga bëri ak nit di sàggan di tekki ngémmam di màtti awraam mu taxawaat di la xaar arbi bi ñëw nga bu max ko waaw waaw waaw waaw dégg naa. waaw nag moom yow daal bëri màtti awra li nga ci xam. moo gën a gaaw waat waataax su waataax sëriñ may wàjj bu xool koo jël àllam waat ko nga ni nii du defar dara léegi mu bëgg nga jóg léegi ci jeeg ci njëkk a. waaw xaaral xaaral xaaral man be mën numbe comme que yéen ñaar daal yéen a bokk tey lii nga fi waxuñu fokkuñu waaw bàyyi ma woo ko waaw woo ko moo gën a gaaw mën numbe eh yow kaay ñëwal to toogal ni xam nga yow dofoo yaa ngi sa sago kii mën nañu wax ni sax wérul ah. moom waale moo la gën a muus lan la gën a muusee eh? xam nga yow saa yi ñu waxee nga faral te eh, yaa doon wax eh, naan kii yéen noppi. mbokk ndey saa nga faram ko noppi. bu ma indil coow mi ngi nii nee na enquête na. waaw leen ndey ak baay. kan la enquête. moom mii li ya waxoo loolu. waaw saa waay saa ma indil problème. li ma na. waaw waxoo ne yaa ngi mën may enquête ngeen bokk leen rek. day day day kër gi def ko sa saalu. saalu entraînement bu. kër gi nañ nañ génn man ak yow suñu pay. sawaay man ak yow sawaay. waaw sawaay. waaw lamañ mënta lekk moroom te ñoolul. waaw lekk leen lekk. lu lu lu sa lamañ wax lu sama lamañ wax loo waxul. mooy. ma hmm. numbe. Hmm. sa faafa la loolu wax. yow waxoon ni ma numbe bokk leen nii. teg sa loxo bi. nga ne après nga ne ma numbe. sa faafa man nu ma ma numbe mën a jure. lu tax ngeen ma ko doon nëbbu lu tax lu tax ngeen may nëbbu lu tax may nekk yéen ci kër gi ngeen di def seen tactique seen jeu di ma ko nëbbu mu ne ma nu may nekkee ngeen ma koy nëbbu loolu fu la na fu ko saa loolu lefatul ma seen nawle laa. Eh, eh, eh, xam toog déglu kii mu yow dof naan la ay mën na sa papa la mën na sa maam la mën na sa di yéen da ngeen dof xamuma waaw. dof ngeen rek. wax na ne yow sama maam la. léegi loolu tax nga mu nëbb nga ma sa papa la moom mu nëbb moom sa maam la lu tax man aw ma problème leneen moo dëgg. baax bañ bañ bañ bañ ndogu dinañ ci waxtaan. non xaaluma xaaluma ñu ndogu dama bëgg bu jekk ngeen gàddu seen bagage yi ngeen abal ma. ñu génn kër gi noonu waaw. Hmm. war ma dem woo police waxa ne ko yéen yéen fii nekk sama kon ba pare dama indil problème ku dugg ci duus yi du ci sotti ndox ah lekk yi. day saf kaani lu ma bëgg si kër gi du am te maa moom sama kër ma def waxal ak police. Manoumbe moom bokkatul ci kër gi. kan la moom fi lay yaay dem ak ak ak sama waaj. waaw waaw waaw wax. ay da ci kër gi. ci la bokk de kenn sama lakk la sama lakk la nu muy bañ a bokkee ci kër gi. Hmm. sama lakk la yow. yaa bokkul kër gi yaa ni Manoumbe sama sama bokkuleen. si ñoo bokk. li mu wax leer na nee na yow mi yàbbu ko ci kër jël say bagage ki nga dem waxal kii mu bàyyi di ma wax loo yow yaa bokk ci kër gi kër gi man ak moom ñoo ko moom sunu papa moo ñu ko bàyyil ñu hébergé la koy doo jël say bagage nga dem kan dañuy jaay suñu kër acca jël sa saag bi bu loo moomul nag dégg nga la nga moom jël ko la nga moomul nga bàyyi ko foofu bu ko defee ñu féex fi lu doom du noonu ah, eh, eh. moom bu génnee kër ak samay mbaañ kan moo lay toggal ndogu. non mën nañoo wool nañu wool continuer. dañuy wool dañuy wool continuer yow saa yoo xëyee sa ndof gi di gën a yokk nga naan wool continuer. yow man de ma la woon damay bañ lool. waaye dimbali ma nga naa may damay bañ loolu saa yoo xëyee sa ndof gi day gën a continuer.